asalaamaaleykum mbokk internet Dakar net nuyu nañu leen yéen a ngi ci seen biir. question comme ni mu koy faral di defee ak site bu mag bii di Dakarnet di leen wax rek ngeen daal di dem abonné boo leen noppee ngeen bës cloche de notification bi ngir ngeen mën a am suñuy vidéo en temps réel nii lay demee saa su nekk tey nag dañoo dalal ndaanaan dalal benn actrice boo xamante ni ñëpp ko ràññee ndax ba euh, imposé boppam jotee imposé na ko ba ñëpp xam ko muy Yaxara Ndiaye ñu gën koo xam ci euh, maman Jeanne bu série Karma tey nag moom lañ daal di rek fekk si ba këram fu seenee am ak moom waxtaan bu ama ama solo maman nuyu nañu la. maa ngi lay fay mm-hmm. fay eh, mm-hmm. comme ni ma ko eh, waxee rek mu ngi noonu maman Yaxra premier dame moom nag mi ngi noonu tey dañoo fas yéene waxtaanee waxtaan bu yaatoo yaatu ndax nag gën nañ laa gis nit yi nam nañu la eh, maman tey bu ñu doon wax ci sa jaar-jaar lan moo la dugal ci théâtre ci maam Yax Laalo mhm. doon mhm. mhm. euh, euh, tey jii boo ñu doon wax ci théâtre jamono bu njëkk ba pour nit ci nekk ci théâtre dafa doon xaw a difficile parce que tout le temps rek euh, waajur yi dafa daan am nañ ko doon gisee ndax bi nga ciy dugg amoo woon jafe-jafe ak parents yi non non bi ma ciy dugg nag macha allah aw ma ci woon benn jafe-jafe fekkoon na sama yaay mi ngi doon dund et tout. Mhm. ba nga xam ne bi ma doon solu lingeer sax perle mhm. mhm. mhm. allah ñu gis que ni ah, comme ni nga ko waxee yàgg nga ci milieu bi waaye nag ci sa ni fi la gën a ràññee mooy série bii di Karma bu waa Marodi nekk maison de production bu mag boobu la foofu lañ la njëkk a ràññee ndaka nga def ba dugg fi nga xamante ni mooy Marodi waa Marodi bi ma fay dugg maa ngi si dugg ci Pod et Marichou moo tax ma dugg Marodi. Mhm. Euh, ma joué euh, jabaru allah bi nekk aw Marichou. Mhm. bi ma paree si loolu nag après ñuy woo ma ci. karma bi ma dem joué ko. d' accord njëkk nga joué ci Marichou mooy ya nekkoon jabaru alaaji bi. Mhm. d' accord ñu gis que ni euh, série nga sa personnage touché ci ñu baax yi. nga am ci njaboot euh, série boobule ndax wute na ni nga ci sa personnage ndax wute na ak Mama Yaxara bi nga xamante ni moom moo nekk Mama Yaxara réellement. non non série bi nag euh, Mama Jeanne ak Mama Yaxara benn lañu. Mhm. parce que man aw ma problème bariwuma problème. Mhm. te je suis effacée mhm. bariwuma lëj lëj daal. te loolu la Jeanne def benn femme la boo xamante ni. nekk si këram di gérer bëriwul histoire bëriwul ay waaw loolu moom dama koy dama koy nangu parce que man dama lay woo parfois dama lay sonal di la woo rek rien que rek pour dégg voix bi douceur bi et tout loolu moom xam naa ni que ni maman Yaxra ak maman Jeanne amul différence bu bari ñu ñëwaat euh, ci ci ci biir série bi ci carment ba tey nga nekk euh, nekk ci handicapé toog ci benn chaise roulante ndax loolu jafe woon na ci yow personnage boobu. non jofewul woon ci man parce que man artiste la te aku laa jaar donc personnage ni mu mënti mel ak fu ñu mënti oo rek da ngay da ngay adapté wu ci. Mhm, d' accord yéen relation nga am ak ak ñi nga xamante ni ñooy say doom ci série boobule parce que euh, courant bi tamit kii woon na bu baax booy seetaan da ngay da ngay mel ni que ni ci dëgg nga nekk sa euh, fir li koy firndeel mooy que ni bi nga ci génne àdduna ñu bëri jooyloo nga ñu bàyyi yéen relation nga am ak ak euh, ñooñu. bon relation bi ma am ak ñoom mooy que ni ñoom ñëpp sama ay doom lañ mhm. euh, yàlla dafa def ñoom ñëpp maman lañ may oowee mhm. pratiquement man ñuy wax sama tur bariwul mhm. maman rek laay dégg ba ci mouvement bi nga xam ne ci la ñu bokk ñëpp maman la wax donc euh, relation bi ma am ak ñoom mooy relation bu frit ñu nekk ay xale yu baax xale yu yaru Mm-hmm. surtout ma Boris moom ak eh, kii moom dañ ma lakkal ba nga mm-hmm. xamante ne tout le temps mama mama mama mm-hmm. vraiment on garde très bons contacts d'accord ñu ñëwaat ba tey damay parce que dafa marqué man bi nga tëddee si laal bi Boris ñëw tiim la jooy moment yooyu ban sentiment nga am sentiment bien vrai que ni nag euh, dee woon nga ko dee du am ay sentiment <laughs> personne doo yëg mais euh, li ngay nekk di tourner bureau boo tiimee ah. Mhm. sa jëkkër bi ñëw tiim la sa rakk ñëw tiim la. Mhm. am ban monde nga nekkoon. monde c'était comme réel. Mhm. parce que tamit dafa dafa metti sa di di jooy. soo ko jógee voyage. tombé ci loolu. sa sa rakk aussi jóge voyage ñëw ci yow mhm. euh, nga am nekk si ay situation mu annulé ay voyage mag lépp mhm. nekk ci yow mhm. yàlla dogal loolu am. dafay dafay métti c'est c'était triste daal. c'était triste en plus boobu nga boobu ma nekkoon sa sa tournage bu mujj ak ñoom. ak ñoom waaw c'était un peu difficile pour toi. c'était c'était difficile ba pare vraiment tournage bu neexoon na tamit. ak. Euh, maa ngi leen remercier ñoom ñëpp. Mm, parce que tournage bu métti woon la. Mm-hmm. te chaque jour dama si am ay retour damay dox ci mbedd mi dégg ay yaama jooyloo. Mm-hmm. c'est-à-dire chaîne boobu ñu ngi jooyloo dañu. bari na ba ci man mi toog macha allah bari waaw. Mm-hmm. parce que tout le temps damay dégg dama jooy ci chaîne boobu ñi naan dama lii dama fàttaliku sama yaay. bi muy génn àdduna donc. mu doon aussi lu ma touché tamit. macha allah ñu daal di ñëw ci euh, maison de prédiction boobu di di euh, mm-hmm. ba tey yaa ngi nekk ak ñoom euh, ci contrat mi ngi leen tënk ba tey wala jóge nga foofu. waaw maa ngi foofu bi ma soxlaa dañ may woo ma dem liggéeyal leen. d'accord. en plus je suis libre keneen ku ma soxla aussi damay dem liggéeyal la. d'accord parce ma contrat bu ma tënk boo xam ni. mënuma génn dem ci yeneen production maa ngi maa ngi ci yeneen production di liggéey ak ñoom mhm. actuellement sax ñu ngi nekk tournage nii mhm. ñu ngi am tamit yeneen yoo xam ne dañ siy nekk parce que yenn saay am ñoo xam ne dañuy ñëw comme yeneen film américain yi wala yooyu. Mhm. buñ la soxlaa bu ñu gisee sa profil neex leen. dañ lay woo nga dem mhm. liggéeyal ko ñu gis que ni comme ni ma ko waxee à part Karma da nga def daal di toog kenn gisatuwaat kenn gisaatu la ci maison de production yi kenn gisaatu la ci série yi nga xamante ni mi ngi génn Sénégal moom damay faral di wax instant bi xaw ma lan moo fi manqué mais du série façon série bu nekk ngay gis mais maman Jaune depuis Karma ba tey kenn gisaatu ko ci beneen série. waaw euh, nañu xaar parce que fi mu nekk nii. Mhm. ñu ngi togg. d'accord te fi mu nekk ci baaral lañu toll. Mhm. bu ñu sooree rek ba yekk moom ah. macha allah lépp leer d'accord da ngay def yëfi daal yëfi professionnel daal genre doo dugg ci n'importe quelle série yi. xam nga série yi nag dafa dafa bari. <laughs> parfois ñu gis ci yoo xamante ni wa da ngay jàppee parce que euh, voilà continue bi du am dara je pense que ne yow loolu ngay daw. série yi moom bari na. Mhm. fi mu nekk nii ñoo ngi ñu ngi ci benn production bu ñu nekk. Mhm. am na yeneen ñaar yoo xam ne ñu ngi ko war a entamer ci mois de décembre. d'accord ñuy ñaan suñu borom rek euh, wisal ñu si ndox bu sedd. amiin amiin te xam naa ne moom yooyu bu ñëwee moom. dina neex sénégalais yi bu baax. ah yow tamit bokk day neex loolu moom sénégalais yëpp wax nañ ko d' accord ñu daal di ñëw ci ci nag ci actualité bi nga xamante ni nag xawoon na jur tuuti polémique euh, ci maison de production yi ak euh, acteurs yi. Euh, maison production bi di Marodi ak yenn ci acteurs yi daal di fay jógee. Mhm. la ko waral mooy que ni ñoom gisuñu ci seen bopp ci li ñuy def maanaam problème mu payoor problème mu xaalis tout le temps dafay jotale ñi nga xamante ni mooy acteurs yi ak maison de production. élection yi naka nga jàngatee loolu. waaw euh, man daal ni ma ko jàngate mooy waxtaan ba juboo rek. Mm-hmm. ay nit moom bu ñu nekkee bëgg liggéey dañuy waxtaan ba juboo mm-hmm. sooy ñëw ci man ñu waxtaan ma ne la cent franc laa am. Mm-hmm. da ngay respecter cent franc yooyu. même bu fekkee tamit dama am ay milliards. te waxante cent franc nañu jël suñu cent franc. d'accord comme li ma ci bëgg a comprendre mooy que ni ñoom bu ñuy ñëw di def seen contrat bu ñu ko tënkee dañuy wax que ni lii lañ lay par exemple trois cent mille léegi nag ñoom acteurs yi bu ñu demee ba si biir xam ne série baa ngi dox xaalis am na est-ce que nekkul jafe-jafe yooyu mooy tax euh, loolu ñuy gis moo tax ñuy bëgg ñu leen yokkal loolu mooy indi problème yi. mais loolu waxtaan la. Mm-hmm. gis nga ni affaire yaa ngi dem wala ñu ngi koy yóbbu ci yeneen chaîne muy dox. Mm-hmm. da ngeen di waxtaan ak seen maison de production. Mm-hmm. bu ngeen waxtaanee ñoom tamit ñu daal di dawal yërmande ak compréhension. seet ni lii kat jaadu daal di koy def. d' accord ñu ñëwaat tuuti ci comme ni ma koy waxee rek actualité jamono ju ñu toll nii nag dëkk bi xaw naa tas <laughs> ñu ñëw ci problème ki nga xamante ni mooy Miss Sénégal ak euh, Aminata Badiane moom mi nekk présidente yor communauté bi chargé wàllu Miss Sénégal. Mm-hmm. naka nga jàngatee problème boobu en tant que yaay. ah problème boobu mënuma cee sori nag parce que xaw ci lu leer nañ mhm. mais daal waroon nañu gën a def attention ci xale yi mhm. parce que miis amul mënuma cee sori daal parce que comme awma ci expérience moom laaj a maman da ngay da ngay da ngay bàyyi daw bi nag nga wax mais mm, vraiment comme man ni ma ci amee sama xalaatu bopp kii sama cameraman bi am ci xalaatu boppam yow aussi war nga ci am sa xalaatu boppam par exemple ñaaxaat ñi nga xamante ni mooy xale yi parce que parfois seen passion daf leen di sonal ba nga xamante ni lépp lu ñu bëgg rek dañ koy am kut ko kut maanaam si à euh, si à tout prix ñi nga xamante ne nag ci ñoom la ñu jëm ñoom it ñu wax ñoo jàppale teg ñu ci yoon bi donc suñu demee ba ñuy euh, maanaam dañu defloo yenn yi xamaguñu nag parce que mbir maa ngi ci loxo yoon mais lan ngay ñaax ñi nga xamante ni mooy xale yi ak euh, fi nga xamante ni foofu lañ leen di encadré pour ñu nekk dara rek parce que chantage yi bari na nekku ci milieu mis bi yëpp ci mm, milieu yëpp cinéma bi et mm-hmm. mais ku ci nekk rek li nga nekk dawal ci fulla ak fayda mm-hmm. liggéey wàcc dem ñibbi sa kër mm-hmm. muy miis ak lu mu mënti doon lii moo la tax a jóg lijjanti loolu dem mais bu dee succès ngay xaar nag wala alalu àdduna ngay xaar mhm. lu nekk di nga ci dugg mhm. te loo dugg tey suba nga génnaat ci mhm. kon xale yi nañu moytu waa yi aussi nañu def très attention ci seen doom yi di xool xale yi di leen suivre de très près d'accord di seetlu xale di leen xool ndax xale yi tamit la ñuy def ak la ñuy wax mënoo koo xam parce que duñ la ko wax dëgg la te dañ koy nëbb mhm. bu demee nag ba nga xam ne trop tard na suñ koy soog a yëg comme na parents yi def attention ci xale yi mhm. xale yi yemale seen ay bëgg-bëgg mhm. d'accord ñu daal di wax euh, comme ni ma doon wax sànq rek d'ailleurs ci euh, mbirum acteurs yi ak maison de production yi d'ailleurs yéen am ngeen mouvement boo leen bokk muy mouvement si bi nga xamante ni dafay xeex ak ak yelleef euh, acteurs yi ndax mbir moom mi gën a avancé mi ngi gën a dox jéego ci diggante acteurs yi ak maison de production yi. macha allah mi ngi avancé bu baax a baax a baax fi mu nekk nii am na ci lu nekk togg comme ni ma la waxee sànq. Mm-hmm. bu génnee ñëpp dinañ xam ni mouvement bi yëngatu na. incha allah ndax ñu ngi si ay projet yu rëy. d'accord parce que mën naa ne euh, quatre-vingt-dix pour cent artistes Sénégal yëpp. Mhm. ñu ngi ci biir mouvement bi. d'accord waaw. macha allah ndax xeex bi yéen a ngi koy euh, amal doole bu baax mi ngi avancé. ñu ngi koy amal doole ñu ngi koy jox gëddëm ñu ngi ci. Mhm. ndax euh, dañ ne acteur culturels yi. Mhm. dayo bi nga xam ne moom lañ war a am fii Sénégal amuñu ko mm-hmm. d'ailleurs FESPACO bi Sénégal lañ ko tuddee woon mm-hmm. te niñ fa taxawee taxaw nañ fa nit ñi dem nañu mais pour man des na mm-hmm. war nañ cee gën a mën a taxaw ñi nga xam ne ñooy suñuy njiit tamit nañu bàyyi xel acteur ak kii yi nañ leen bàyyi xel te nañ leen toppatoo jox leen seen gëdd li ñu bëgg ñu di ko def d'accord incha allah ñu gis la ci li nga xamante ne mooy Kouthia émission bu mag boobule nga def ca lu am solo nekk ca première dame def ca mbir moo xamante ni macha allah kenn dootu ko natable ndax bi nga noppee première dame recevoir na ah bi ma noppee nag première dame recevoir ma. Mhm. mais nag émission bu ma neex la woon. Mhm. Mhm. Ah, yaa ngi ciy dox ay jéego woon na la téléphone genre parce que nag war na la recevoir. ah dox ci benn jéego nag. Mm-hmm. dëgg yàlla doxuma ci jéego binduma lettre defuma dara mais nag. non dina la recevoir. Ah, mais daf ma war a recevoir nag. dina la parce que nag wax dëgg fa yàlla ni nga ko <laughs> daal di toppandoowee macha allah. xaw ngeen nuroo tuuti. Mm-hmm. moom dafa dafa dafa douce moom aussi dafa baax. yow aussi mm-hmm. nga daal di koy toppandoo comme moom ni mu mel. donc war na recevoir nag am yu mu defanteeg yow. waaw loolu de maa ngi koy xaar nag. ci Marème Faye Sall nag sunu sunu première dame bi nag tamit nag. <laughs> waaw vraiment. <laughs> ñu daal di ñëw aussi ci li nga mhm. xamante ne mooy jamono ju ñu toll ni nag euh, cinéma bi maanaam théâtre Sénégal bi xaw nañoo ñàkk ñi nga xamante ni mhm. ay ay bopp lañ ci ci ci biir millier bi euh, ñi nga mhm. xamante ni def nañ ci rëy muy mel ne Mère Thiaba ak ki nga xamante ne mooy Myriam Dior ñu daal di génn àdduna récemment nag ndax jotoon nga am relation ak ñoom cab mère Thiaba Myriam euh, doomam Virginie mm-hmm. am nañu ay séquences yu ñu am ci carment bi muy xale bu yaru mm-hmm. di xale bu baax ku ku tamit mm-hmm. ndeysaan ma koy jaalewaat yaayam bu baax a baax a baax mère Thiaba nag de koo xamante ni dañoo bokk arko nekk ci arko yi muy nit ku baax nit ku ouverte ku mën a joxe conseil macha allah ñuy ñaan sunu borom yërëm leen képp ku jiitu rek yal na la yàlla yërëm ca xarara sa àjjanay firdawsi ñun ñu fi des it yàlla may ñu gudd fan ak wér amiin incha allah mhm. ñu xamante ni yéen fi nekk dañu bégal saa su nekk rek mhm. yéen it yàlla may leen gudd fan yokk wërsëg yi am ah. mhm. mën ñu ni dégg fi gën a kawe kawe amiin amiin amiin amiin tëjee ko question bu mujj rek en tant que jigéen yombul ak millier bi nga nekk naka nga koy gérer ak doom ak sëñ bi tout man nag c'est mademoiselle mademoiselle waaw Ah mais macha allah ñu ngi koy gérer normal amul benn problème bu ñu waree dem liggéey dem liggéey ci jàmm ak salaam bu ñu paree ñibbisi. ah macha allah. Mhm. d'accord maa ngi ñaan euh, sama yaay ji nag il faut mu am euh, euh, benn sama papa yi <laughs> macha allah yéene naa la sama papa yu baax yi ñu ñëw fëgg bunt bi nag macha allah. yàlla baax na nit ku baax la. nit ku mhm. duus la. Mhm. nit ku wàccee boppam nga macha allah. incha allah yàlla baax na première dame ca waaw <laughs> macha allah ma Yaxra la lañu dalaloon tey ñu bàyyi ko mu tàggatoo ba beneen yoon incha allah. waaw maa ngi leen di tàggoo di leen remercier yéen ñëpp di ñaan rek ya Sénégal am jàmm ak salaam. Mhm. yàlla def fi tawfiq ak taysiir. Mhm. waaw ñëpp bokk. amiin amoon nañ mbégte trop jàkkaarloo ak yow nii lay demee saa su nekk di leen jox dig daje ba beneen yoon incha allah merci.